yi nga toog a toog sa bés malaaka bay xëcc sa ruux muy metti lool te doo ñu xam ne yàlla mooy borom jaam yi jabar di jooy doom di jooy kenn du ca mun lu dil di jooy ñu xam ni yàlla mooy borom jaam yi mor bu weex lañu lay lamas ñu génnee la kër yóbbu la kër wuutee ngi ni ci ñaari kër yé ñu xamné yalla moy borom jaam nga ba ñatti fan sax di jaar ci say nafas mu lay tedo do fa xas ñu xamné yalla moy borom jaam yi dahru al urab yati وجاء الرسول موت بعد ينوب هل الدهر هل الدهر وياكم دق هل الدهر هل الدهر إن تار العراب يتيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فلكل من بهر الممات نسيب مدى الدهر والأيام وذنبها شيل وشاغا غراب البين معلم رحلتي على الدهر على الدار الدنيا وجهك وجيفة يجاذبها فغرر بتلك الكلب وما قلق الرحمن هل الدهر هل الدهر إن تار الغراب يتيب المحمود وهو الحبيب هل الدهر إن تار الغراب يتيب وجاء رسول بعد موت ينوب هل الدهر إن تار الغراب يتيب وجاء رسول الموت بعد ينوب بيت بوب لايفي لاي فيري هو تشلنغو كونتيني bu buñ paree ñu yeggali tam xarit euh, Seydina Aliyun karamallaahu wajhahu dafa am bés mu war fas dem ca armée li a Munawwara yi bàq ya ne dafay waxtaan ak niiw yi jar na nga waxtaanal de laaj la ñu jox la contrand rendez la xew fee yow nga jox leen compte rendez-vous la xew fii Aliyun ne man daal xool naa ba xool waaye ñee dem daal joxaguñ ñu compte rendez-vous te ñun jox leen compte rendu kon laaj na ma wax leen la laaj na ma wax leen li xew fii ñoom it ñu wax ma li xew fee seen na Alioune toog benn ngoon rek war fas ramal dem ci avenue Medinatu Munawara yi yegg si na asalaamaaleykum yaa ahlal maxaabiri asalaamaaleykum yéen niiw yi asalaamaaleykum yéen ñu tëdd fii ci bàmmeel yi maa ngi leen di laaj ma addache indakum lan ma fi xew li ngeen yendoo man kat maa ngi wax ak yéen tuxbiruna bi axbaarikum am tuxbirukum دما بوغ نين خبار ما جوخ ما كونت راندو لي خاو فوفو مانين ما واخ لين لي خاو في لي ماما علي ني با واخا لولو فشمينا شوطان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امير المؤمنين من بن ني موندو تك رك ген سي بامي بي نخ وعليكم السلام ما لا فاي نيو كين دي واخ نك السلام عليكم باخو السلام عليكم كين دوكو اه السلام عليكم Eh, foog nga àndee musique bi asalaamaaleykum mooy yal na jàmm nekk ci yow nga ne ko waa salaam yal na nekk ci yow waaye salaamaaleykum mooy yal na nga dee xam naa ne yéene kenn ñu morom dee waaye ñun nu ñuy nu ñuy nuyu daal baaxul mbëri asalaamaaleykum wàccee yahud yi dañ doon ñaawa julli yi ñëw naa leen salaamaaleykum yal na nga dee ñu ne leen wa aleykum buñ ne la yal na nga dee nga ne ko yow na nga dee mais asalaamaaleykum wa aleykum salaam la ñu wax Mor rasulillahi sallallahu alayhi wa euh, sallam daf ne laa tadxulu jannata hatta tuminu wala tuminu hatta tuhabu awala adulukum ala cheyin ida faaltumuhu tahabaytum qiila aw xaalu ya rasulallah asu salaam beynakum nabi nee na kenn ci yéen kenn ci yéen sahaaba yi yéen ñu ma toogal yéen julli ñi kenn ci yéen du dugg àjjana yéen julli ñi laa wax hmm. laa tadxulu jannata kenn ci yéen du dugg àjjana hmm. waaw yow loo bëgg maam bëgg a dugg àjjana hmm. man doo ma ci boole Moustapha it bëggoon na ko ñu fi toog ñëpp bëgg nañ ko ne bi nag kenn ci hatta tuminu minu kel a dugg ajar du am ci muk mukk lu dul ngeen gëm wala tuminu te mënu leen hatta tuh habu dul ngeen bëggante ndax bëggante nañ wala déet ñu ngi koy wax de waaye wóorul ndax ndax bëggante nañ wala déet ma ne ñu ngi koy wax ku gis sa morom na bëgg naa ko te bu la rombee 10 mètres nga jël ko te naan bëgg te bi ngay jël ko ci lu bon rek te naan bëgg dëgg la al muminu lil mumini kal bunyaani yasuuru baaduhum ala baadi nit yi nee jullit bu nekk ak sa mbokk jullit dañu war a mel ni miir gis nga muul bu ñëw tege ci beneen muul rek dafay gën a dëgëral muul bu fi nekkoon hmm. maam sëñ Tuubaa mu baax mi radiyallahu anhu nee na boo doxee dajeeg nit nga ne ko roof loxo mu jox la loxo nga ne ko yow noo tudd lan nga moo la man jullit la maam sëñ Tuubaa nee na sa mbokk nga jàppal nee na boo ko laajee nag naka yo lan nga mooy la man julli la fo dekk nga ne ko man maa dekk xombal no sante mu ne la sante nangam ngeen ñaan ngeen bokk ben fami maam sëñ touba ne du so mbokk sa bop la mbokk ak bop duñu ben mbokk moy kep ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadu rasulullah sa bop la ko xol nak ye ñaan ngeen bokk benn deret kooku du so mbokk sa bop la mo wax la ci sa ben xisa bu am solo bala mi continuer am ben gorgu ñu Abdullah ibn Abdoulaye sëriñ bi Abdoulaye ibn Xarsataan góor gu yéeme la woon mu ngi dëkkoon Yaman góor gu bëri xam-xam la woon ku ragaloon yàlla la ku màndu mu am jour mu jël koo Xarsataan dem Makkatal Mukarram góor gu Abdoulaye ibn Xarsataan téere ñu ne jiite na Kaaba gi pendant sept ans dem na ba xam-xamam ak ragal yàllaam ak màndu kii dënk sax Makkatal karam moom ngay dënk ngeen màndu gi mu màndoon xam nga màndu maam Moor bokk na ci Nabi Musaa moo tax ñu tuddee mu Muhammadul Amin màndu bokk na ci ma dënk la deux cent dirham dem suma kër woo la ne la maam Mor baal ma sa 200 dërëm bu ma la dënkoon léegi soxlawaat naa ko des si maa ngi la joxoon kayitu 200 dërëm nga jox ma ñaari kayitu 100 dërëm ana 200 dërëm bu mu la joxoon tu mandu te Abdoulaye ibn Xarasa taan nag góor gu mandu la woon jiite na Màkka gi Màkka Kaaba gi pendant 7 ans kii dënk moom lay dënk kon bu góor gi nekkee ci sukuraat muy def testament woo taaw na ko doom mun a am mun a ko fii ma nekkoon rëkk mun a am mun a ko damaa bëggoon nga ma fi mun a am mun a ko ndënkaane dafa am solo almutamanu daaminun na ko nit ki sax ñu la wóoloo ba dënk la luñ la dënk bu rëy la da nga ko a wax na ko buggoon naa nag dënkaana gi ñu ma dënk liste baa ngi nii kay baa ngi nii ma moor am na fi nangam Moustapha am na fi nangam Aliou Seck am na fi nangam euh, euh, euh, Machamba mii am na fi nangam bu ñu ñëwee kenn ku nekk na la wax turam ak santam noté naa ko fi na la wax li nga xamante bi moom la la loolu la ma dënk noté naa ko fi boo demee place sangam fa dënkaana yi nekk gi génn àdduna ñu defar ko sàng ko suul ko mu am ñi ñëw di laaj seen dënkaane ba am benn góor gu ñëw laaj ndënkaaneem alal ju bëri lool takku lool mu laaj ko doom ji doom ji na ko papa noo tudd ci misaal mu ne ko man daal maam Mor laa sant laa tudd noo sant mu na ko Sylla mu ne ko waaye ñaata nga am ci dënkaane mu ne ko man daal góor gi joxoon naa ko deux milliards mu ne ko mu ne ko baal ma ma xool liste bi mu xool kaye bi ne ko ah ah Mame Mor yow daal ku tudd Mame Mor sax jegewut nekk ci liste bi wax ma la sant si la yow daal sa tur nekku ci liste bi waaye loo ko joxoon euh, nga ne ko 2 milliards ci lan mën nga ko defoon nga ne ko maa ko defoon ci benn ci benn gaal gu zone mu dugg xool dënkaan yi fu nekk mu raas fa gisul ko euh, mu génn na ko góor gi neexut ba neexut mais sa dënkaane nekk fi mu ne ko déet ëpp naay def mu ne ah, mu ne ko du ma dem te joxuma suma dënkaane dënkaane gu ma jox góor gi suma àdduna ak àllaaxira ci la nekk suma teranga nga ne denkaane gi nekku fi góor gi nako nekku fi mu dem laaj ben sëriñ bu mag na ko ibn xaraxsatan joxoon naa ko benn dënkaan milliards la won dënkaan gi suma ala alaxira yeb ci la suma manam suma dund yeb ci la ko basé won laaj na dom ji mu ne suma tu nekku fa te gisul dënkaan gi gi nako xam nga noy def motax haj malik na be euh damay bañ guddal dama jaar fi rek euh, euh, sëriñ bi def nako da ngay dem teeni chantal mu ne ah mu ko guddi khamis nga julli euh, bo ji ba pare kayitugude nga den peene sam sam nga julli nyai rakka ñaan yalla nga yuuxutude góor gi na ko képp koo xamante ni ruham demna na genna adna ruham fanane bu fanane àjjana boo demee sam sam ku dal xam bu boo yuuxaturam dina ko wuy gor gu naa fi la ñaayi rakka woowtude góor gi Abdoulaye ibn ken wuy wut mu dof deuxième fois wuy wut troisième fois ken wuy mu musiba amna na delluwaat ci góor gi na ah, la nga ma def na ko mais ken wuy ma gor gu nako musiba amna serigne nako musiba amna mu nako ban musiba mu nako kon gor ga nga safara mon ko lu nga wax munta nek abdullah ibn xarsataan moy borom xam-xam bu bu reuy gor gi nga wax na mu nga safara moy gor gu ragalon yalla gor gi nga wax na mu nga safara moy gor gu mand won gi gor gi moy ki nga bi ah, ah, gi setta da ka gi ko ci nabi mustafa neena na ñent dina la ko wax xol leen rek donte sax dafa ñeer xol leen rek yalla mu ngi ci bind tiyaaba xam nga bu bi ban la alquran xol ko rek yalla mu ngi ci bind donte xam nga ci dara ñàkk ko xam dara nel benn euh, ne nee na xool say ñaari waajur donte yëkkati wuloo dara jox leen jàkkaarloo ñoom ñu ne la jàkk nga ne leen jàkk yàlla la ci bina tiyaabu moo tax dafa mel ni mënaat yu gën a mënaat amul weer du nampal waaye bu jàkkaarloo doom ji doom ji xool ko mu xool ko yërmaani gi dox seen diggante rek moo koy suurloo nifil mu sabaa nee na kaaba gi boo jàkkaarloo moom di koy xool donte sax wóorul xool gi nga koy xool yàlla mu la ci bind tiyaabu nifil mu sabaa nee na nee na borom xam-xam jàkkaarloo moom mu ne la jàkk nga di koy xool mu di lay xool nee na xool gi ko koy xool borom xam-xam bi la yàlla nga ci bind tiyaabu buur gi na ko munta nekk buur gu ragal a gu mànd googu jiite kaaba gi juróom-ñaari at xam-xamam bu bëri bi góor gi munta nekk sarawa góor gi na ko sëriñ bi na ko da ngay dem euh, yaman am na benn teen bu ñuy wax bahmuud Euh, naka teen boobu képp koo xamante bi ruuxam fanaani na safara guddi altine ci guddi boo demee ba yuy xool ci noonu dina la wuy góor gi def mu ko wax dem foofu noonu gaajitu guddi mu naa naafila ñaari rakka woo góor gi góor gi wuyu ko na Abdoulaye ibnu Xarasatan góor gi na ko waaleykum ah, ah, salaamaaleykum ya Abdoulaye ibnu Xarasatan góor gi na ko waaleykum salaam wuyu ko mu ne ko moo papa sa ragal yàlla gi sa xam-xam bu bëri gi sa mànd gi lan moo la dugal fii mu ne ko dara andiwul ma fi li dul koro ba ma jëw koo suñu dëkk toxu dem màkkatal mu karam dama amoon benn jigéen boo xamante ni ñu ngi wax Fatimatu bintu Xarasata na ko soxna si nag man ak moom bokkuñ ci premier maam benn suñ premier maam sama maam bu jur suma yaay boo ko laalee doo gis bopp ma bokkoo soxna si rombal suma deuxième maam nga dem troisième maam romb troisième dem quatrième maam romb quatrième maam dem cinquième maam nga romb sax cinquième dem sixième maam ba ci septième maam ci laa bokkoo soxna si yalla nak mu ma jëppee ci soxna soosu non lima duggal dugal fii dara tegul mako dudd soxna yalla yàlla na ko la bu ma tuxoo ba dem makatal mu ko ram ko la gëna xol gëde xol soxna ci lu mu nekk xamata mo ci lu mu nekk top wu mako yalla yàlla dog googu ma dog mbokk mom luma merema ba duggal ma fi te nee la mooma soxna ci ñu ngi ci juroom ñaari ma kon mbokk janna setan de hmm. ah, ah wa awlul arham baaduhum awlaa bi ba'd gëna a gëna yey gis nga lañ léegi nit ñi ku la dog mbokk mara di moom daal léegi euh, euh, euh, bëri na ku la mere sax nga xool yéen ñaar ngeen sëree lool bu bu bu bu bum la naqari ndax ndax ndax mere gi mu ngi ko jëkkee ci ay mbokkam ma continuer Cheikh na Alioune laa duggee foofu ah, ah, limaama Alioune mais la nabi nee na kon mënu leen dugg àjjana lu du ngeen gëm mun leen a gëm lu du ngeen bëggante rasulillahi na awala adulakum ala shay'in ndax du ma leen wax loo xamante bi ida faaltumuhu bu ngeen ko defee taxabeetum di ngeen bëgget ñu ne ko aha kañ mun a afsu salaama beenakum da leen di nuyoo seen diggante asalaamaaleykum waaleykum salaam dina andi cofeel dina andi bëggante nabi ne euh, limaam Aliyun war nag ngoon dem ca armée li Madinatu Munawwara na ma a na na na na na gars yi nekk ci bàmmeel yi dama leen di jox compte wax leen li xew seen ginnaaw ngeen wax ma la xew fii boo waxee loolu nee na benn néew dafa dégg kàddoom fa sami naa sawtan wa